wara ba jëm ne keng waxi mag jëm dañ tali baggu war na mbaam bisitul boxam lay tollol guy gi le fils de Woré Sarr Boy Niang le fils de De Gaulle ma nga noonu Boy Niang war a ngemboo Pikine jóge fo war a jubali jubali Demba Diop guy gi war a jóge géejawaay war a jubali dem ba jóg Boy Niang Gouye Gui arbitre sifflé na Boy Niang sànni na gauche bi dal Gouye Gui sànni na gauche bi dal attention Boy Niang door na Gouye Gui dooran na léegi Gouye Gui dooran na ci faare Boy Niang dooran na ci faare ya Boy Niang Gouye Gui Boy Niang door na attention Boy na ko Boy Niang yëkkati na Gouye Gui wéyal na ko yëkkati na Gouye Gui Gouye Gui Gouye na Gouye Gui na ko faqal na ko mot ba jabaxal ba lay laxil la laa jël ba na la victoire de Boy Niang la fils de De Gaulle gone gi ba ngoog la fils de De Gaulle Boy Niang foñin foñ foñ foñ foñ foñ foñ fa wa caca Boy Niang dina ko ray ay ay ay ay Boy Niang foo wacaaca gonay Pikine baa ngoog dana ko rey léegi nag damay commentaire ko analyser dama koy analyser commentaire ko Boy Niang arbitre dafa siffler Boy Niang daw dóor Boy Niang mu dóoree guy mu jàpp ko sañoxal ko booy Niang wéyale ko Boy Niang nee na j'attaque sa koñ et sa gañ Boy Niang waxoon na ko booy Niang nee ko dama lay bàyyi communication bi ngay communiquer mais bu suuru la mu jàpp bis bu ñu tëjee barrière yi di nga xam lépp dëgg la damay dolli cere yokku ñaax te dañ ne ñam du neex ñamati mooy ñeex moo tax Boy Niang dolli na cere yokku na ñeex o fañin fañ fañ fañ fañño ngora fawa caca booy Niang dina na rey jaajëf jaajëf boo demee tegal ko Modou Mbaye